asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuy waa leeral point net di nuyu ñëpp ñu ñu suivre man maa ngi tudd Mouhamadou Moustapha Ndiaye euh, di gérant startup euh, buy yëngu ci lépp jëm ci wàllu ingénieur yi ingénierie logicielle digitalisation euh, nekk fii ci Soprim cité Soprim waaw. waaw métier métier bi boo dee xool euh, ñi ngi yëngu ci lépp lu jëm ci wàllu électronique ñi ngi yëngu ci lépp lu jëm ci wàllu euh, énergie renouvelable di yëngu lépp lu jëm ci wàllu aussi développement informatique lu jëm ci wàllu digitalisation des bépp processus boo xam ne si gis nañ ni ñi ngi koy def ñu mën képp koo xam daal li bépp liggéey boo xam daal ñi ngi koy def manuellement muy jural askan wi ak coonaak yooyu ñi ngi def le tout pour informatiser ko fexe ba euh, def ko daal bu mucc ayib. waaw brevet boo dee xool li tax euh, ñu def ko euh, c'est pour aar yenn nit ñi ci ñi nga xam ne si dañ def lu dul yoon maanaam nit bu jugee ci askanam gis benn problème bu am mu jël problème boobu góor góorlu ci góorgóorlu ci góorgóorlu ci ba solutionné problème boobu noonu su ko solutionné ba pare euh, yoon daf ko koy aaral na la koy aarale mooy lu sotti rek am boroom maanaam bu fekkee problème am na nga leb say nelaw leb say xalaat jël ay nit fay leen leb xaalis banque góorlu ba mbir ma sotti bu mbir ma dee jur koom fekk amul kenn koro ko aaral da ngay gis leen ku la ëpp koom ëpp la doole ñëw nangu ko ba tax na yoon bu loolu amee da ngay def lu ñu naan brevet demander ko def description technique bi jox ko ab cabinet mu def recherche d'antériorité état bi teg na fi benn agence bu ñu naan aspit agence boobu noonu moom mooy lié OAPI bi nga xam ne si fukki dëkk ak juróom-ñaar ñoo ci adhéré pour aar seen askan. aspect boobu ngay dem déposer kayit yi bu ko defee bu fekkee da nga néew doole man soo dee xool état du Sénégal moom mu subventionné woon bi may def brevet bi. subvention bari naa chaque année dañ lay subventionné chaque année parce que vingt ans yëpp da fay lu ñu naan ay annuité man état bi non seulement moom mu subventionné mais boo dee xool chaque année annuité yi may fay daf may subventionné sinon euh, looy gën a dam nag li ngay gën a fay di gën a bare maanaam looy gën a dam sa koom di gën a yokk ngay gën a fay lu bare. bi loolu amee euh, ci ngay dem déposer ko ñoom bu ñu ko yóbbee Yaoundé saytu ko ci mbooleem dëkk yi gis ni ah kii de lii mu solutionné amu fi woon ñu jox lu ñu naan décision décision mooy lii moom mooy brevet décision bi lañ lay jox bu ñu la joxee décision bi moom moo lay may sañ-sañu mbir moomu nga solutionné nga mën ko exploiter pendant vingt ans ci fukki dëkk ak juróom-ñaar yi nga xam ne bokk nañ ci yëpp bu ñu la xësee ba jox loolu la képp koo xam ne si nag dugg na ci di ci def naka ko ci dul noonu mën nga koo yóbbu ci yoon ku mu neexit ku ci gis intérêt am wala nangam nangam it mën nga ñëw demander yóbbu brevet bi ci yoon loolu daal moom brevet boo dee xool de rétroactif par exemple soo dee xool le 22 septembre 1994 2014 laa am brevet boo dee xool sax man je suis détenteur de defe naa trois brevets ah deux yi ñëw na am na beneen bu des te boo dee xool yépp ci wàllu digitalisation la euh, euh, brevet bi nag bi ma ko amee li tax ma déposé ko woon dama euh, ñëwoon boo ma permettre ma egg ci question yi brevet li tax ma breveté ko mooy avant ma koy breveté sax dafa am maanaam. gis naa so pour solution bi problème bi depuis 2012 mais li naan wa ko zi ilmin alim maanaam loo gis solution solution amul lenn loo xam ne si yow nit ki di nga am capacité def ko à cent pour cent mu ngi mel ni nga amoon sa plan kër bu rafet dessiné ko yëpp ba pare ak loo def dessin industriel industriel ak loo doon architecte architecte architecte il faut nga dem jëli ay maçon bi loolu amee ci laa liggéey benn société bu ñu naan Tracom international de passage maa ngi nuy Ibrahima Traoré ak Seyba Traoré instant boobu mosuma collaboré rek sax ku ñu naan Samba Sow. Euh, monsieur Sow bi ma koy xam mi ngi yor benn société bu ñu naan euh, boo demee ci bureau dappuis de création bu. Euh, as kii euh, bu Apix da gis ni Samba saw mi ngi yoroon benn société buñ naan Cisco Web Cisco Web la yoroon waaw mi ngi nii Cisco Web la yoroon muñ ko créer en 2011 Samba Sow prestation d' activité bi noonu def prestation de service la mi ngi nii mooy secteur d' activité principal prestation de service la en 2011 ci lii laa ko xamee bi mu ñëwee ma ne ko am naa benn projet. lu jëm ci wàllu billetterie dans les transport ak collecte de taxes municipales ah waaw comme rek Sénégal man damaa euh, rafetoon njort mu ne voilà euh, nu muy demee mu ne non yow sa mbokk taalibe nga mën naa la développer Apple loo ma kii nangam nangam loo ma kii garaawul quoi ma ne ah kii di sa mbokk taalibe xalaatuma leen mais nag moom dafa jàng France France la jànge ba ñëw par la suite ñu dem ba sa yàgg mu indi ku ñu naan Pathé Ngom Pathé Ngom waree lay liggéeye ma gis ni Pathé mooy développeur bi quoi ñu commencé. ñu commencé boobu signé wuñ pacte defuñu dara ay wax rek lañ ci woon ma commencé ànd ak moom yóbbu ko ci mbooleen président GIE yi dugal ko sama réseau yépp ba sa yàgg ma gis ko buy présenté mu naan je je ma defaroon ko ay carte carte de visite sama entreprise ma gis ko muy joxe ay carte de visite entreprise am après ma gis nii teg na mi ngi commencé teg tànk wor comme que aftu lañ doon defee présentation ma ne ko nañ jaar ci El Hadj Omar Ba moom c'est un ñoo bokk daar aussi mais moo ñu mag ba ma ko fa yóbbee ba ñibbi wax xool yëpp yi mën a xari ba ma ñibbee ci suba sa fekk avancé dañ ak paay ak yëpp la Samba defar lu ñu daan pacte la bind pacte pacte binduma ko de Samba saw moo ko bind mi ngi nii indaale naa ko sax la bind benn pacte d'associé mi ngi nii sàmba saw moo ko bind ba mu ba mu jeex même bi mu bindee pacte bi aussi moom moo bind lépp bind ci nii moom mi ngi bind ni Transpay est l'entreprise promotrice de, du projet de solution ticketing dans les transports aftu Dakar Dem Dikk et la collecte de recettes municipales juuti spécialisée dans la moom nangu na loolu kon nangu na ni man maay promoteur bi mu tourné ni Sudipay s'engage à développer bien sûr moom moo développé application bi na arrêté naan moom moo ko développé mais avant mu ko développé dama ko jox cahier de charge maanaam lii laa bëgg moom xamul woon sax transport bi mu développé pare nag ni moo ko moom xam nga dem ba commencé gis enjeu beeg yëpp tout ci biir pacte bi soo dee xool sax fii dama ni je mangage à céder la signature des contrat Dakar Dem Dikk ak recette municipale bu fekkee ni moom def na lépp euh, dinaa ko jox yooyu kon moom nangu na loolu lépp mais ci bi mu xoolee nag enjeu ba gis enjeu bi rëy rëy rëy trop euh, mu signé woon ci pacte bi signé li ñu signé pacte bi mooy kenn amul droit def lenn wor daal. Euh, mu indi ay yeneen contrat licence nangam instant boobu nag xoj ma maa ngi ay preuve xoj ma di ma def ay chantage yu metti man nit comme que sama paa dañ ma wóolu woon mun ma fa dam lu mu wax rek ma waaf nangu mais ma waaf nangu mu indi ay këyitam ak yépp bi loolu amee euh, ñu dam ba sa yàgg mu àbb ma benn jour sama smartphone jël ko ak sama box yi ma daan defar moom nee na box yi laa breveté jël box bi yóbbu ko nekk te boobu mi ngi dem euh, Dakar dem dikk ni ma ko xamee mooy dafa ñëw fàtte compte Gmail am parce que moom yorul woon sax smartphone pour vous dire rek dafa fàtte compte am sama smartphone bi mu ci fàttee ma ñëw gis si ni da doon def ay présentation Dakar dem dikk instant boobu Babacar Fall mi ngi woon Dakar dem dikk Babacar Fall bii soo dee xool am na benn mail boo xam ni Samba saw moo ko envoyé fii yi may wax ni yëpp ay preuve ngi ni di wax waxu Babacar Fall ak ya Babacar Fall li mu ko defal ak yooyu yëpp ñi mu ko mettre en relation yëpp te instant boobu Babacar Fall xamoon na ni man sàmba man la àndaloon man maa doon patron bi loolu amee ah. ma def sama brevet di liggéey di liggéey leboon ay xaalis ak yépp bi ma lebee xaalis rek moom Samba jox naa ko ci presque lépp total huit million cent quatre vingt et un mille ak benn cinq cent mille boo xam ne dama fekkoon location bu metti mu nekk ci ay difficulté ma lebal ko ko ba léegi fayeegu ma ko huit millions yi moom naax na saay après la indi ay kayitam yu bari nag ay facture nangam nangam ma jëlee yëpp tàkk am keneen ku ñëw mënuma jaay affaire yi askia yóbbu ma ci yoon correctionnel mënumaa jaay affaire yi ndax am na keneen ku ñëw dugg xool affaire bi copier ko sama brevet génnagul mi ngi en cours d'étude kooku mu yóbbu ko ci yoon mu yóbbu ko ci yoon ba gañe ko ci diggante bi Samba rompre pact bi rompre pacte bi rupture pacte bi rupture def rupture pourquoi parce que dafa bëggoon jaay affaire bi Congo affaire yooyu noonu jël affaire bi jaay ko Congo euh, à l'aide de mi ngi nii boo dee xool bi mu koy jaayee sax mel baa ngi nii parce que bi mu ko jaayee pare daf ma bind mel ni ma maa ngi nii Congo léegi mi ngi nekk membre membre Compudis membre euh, Compudis mu ngi nii waa kay mi ngi nii mi ngi nii mu may def demander ay box Euh, fi foofu mi ngi nekk SudPay membre du groupe Compudus international mi ngi nii jaay na affaire bi mi ngi ko jaay benn société bu ñu naan euh, en partenariat avec Sojec du Congo xaw ma ko yooyu yëpp fii mu may demande pour ma defal ko ay box ak yooyu noonu mais yooyu boobu bi lii la bëggoon moo tax mu pour pacte bi ci biir mail boobu sax mi ngi ma naan ma j'espère que ton projet au Sénégal aftu avance très bien kon moom xam na ni man maay man maa projet yi non mënuma ko yóbbu ci yoon parce que ñoo bokk daara damay bàyyi lépp avec le temps c'est avec le temps que toute chose vient en vite maanaam àdduna wor inna allaha la yahdi kaydal xaa'iniin wor ku ñu jiiñ wor fi ren ba déwén mu kii la damaa bàyyi noonu rek avec le temps bi ma yóbbee kee ci yoon ba gañe ko nekkte moom Samba Sow delsi na Sénégal ba am keneen ku ko ngemb ki ko ngemb mooy euh, mec trans mooy ñi ma doon négocier man ak moom ak Mamadou Kanté bi nekk mec ñoo doon négocier pour aftu muy liggéey ak du Kanté am na ñu naan Abdou Karim Fall aussi bobine la daan ma jaay moom it di liggéey ak Samba saw fi ne ñun ñëpp yóbbu nañ ma ci yoon ñoom ñëpp fi ne nii j'ai de cinq assignations parce que dañ nangu bi loolu amee ah ma ne di xeex bi ma gañee affaires yi procès yi nag avant may gañee procès yi CETUD woowoon na ma pour ma signer benn charte bioéthique CETUD dafa am benn directeur bu fa nekkoon bu ñu naan Alioune Thiam man la bindoon lettre woo ma pour ñu xool nan lañuy liggéey ci wàllu yi booba kenn nekku fi amul con amul kenn contre concurrence déloyale amu fi woon directeur boobu jóge fi directeur bu bees bi ñëw ak Babacar faal indi seen équipe bëgg maa imposer ay contre facteur man leen mënumaa nangu contrefacteur yi jël leen brevet bi ngeen xool nangam naam lu nekk def naa ko bind naa mel lu nekk ñu may signaloo charte biotique boo xam damay joxe données transporteur yi leen dam leen nga laaj ko transporteur bi nee ma jox leen rek ma jox leen ñu court circuité ma bi loolu amee sam brevet bi aussi directeur de, de des opérations du CETUD fu mu toog danaan brevet bi baaxul di ma mettre en mal avec les transporteurs j'ai les preuves waaw léegi décision bi léegi bi mu leen yóbbee ci woon nag ñi ñuy topp brevet pour ñu annuler ko ñoom ñu demande annulation ba cour d'appel ni brevet bi baax na brevet bi baax na kenn du ko annuler foofu ñu débuté leen ñu continuer di contrer ba grosse bi génn bi nga xam ne si moom mooy demander ñoom ñu arrêté contrefacteurs yëpp arrêté ak receleurs yi bi loolu amee en 2019 man ma ni Sénégal boo fayoo rek àdduna tukki ma jug dam sama papa yi waxtaan ak ñoom bind lettre xam nga fii Sénégal la ñun dañu am suñuy aada suñuy mbaax rafetal bi loolu amee ma toog ba sa yàgg gis euh, monsieur directeur de l' opération de la CETUD euh, di CETUD bu tudd Babacar Fall bind benn mail ni paay Moustapha Breuve bi mu yor baaxul ñëw leen ma lijjanti leen solution nangam naa nga xam nga rek ay teere ngi ñëw BRT ngi ñëw wax leen yooyu xam nga moom autorité la bi loolu amee ma gis euh, ñu bari ñu may yoral xaalis wor ma ci dam ci contrefacteur yi ah ma jël affaire bi yóbbu ko ci yoon bi ma ko yóbbee ci yoon nag li tax ma ñëw tele nii mooy euh, mi ngi noonu ma ko yóbbee ci yoon ah gars yi jël exécuté ko xool appareil yi bu ñu duggee ci appareil yi li ñu exécuté nag lii dong la maanaam li ñu breveté du du du du du machine on brevette nii les machines nii la solution dañuy breveter euh, nu mu tuddati revendication yi la ñuy breveter lii mooy revendication revendication yi mooy ticket beeg information yi li nga xam ne amuloon ticket bu amul woon ticket yi nekkoon amul matricule amul GIE amul itinéraire amul zone yooyu yëpp ay euh, revendication loo xam ni dama ko revendique sama brevet kon nit fu mënti jaarit bu résultat bi nekkee loolu ak mën a permettre nit ki toog këram di xam li am à temps loolu sama propriété la waaw kay dañ ko protéger aussi au niveau de BSDA BSDA en mille 2014 dem nañ fa ba protéger projet bi te boo dee xool yëpp Samba Sow mi sonal na ma trop mi ngi ma yóbbu assigné na ma am na ñaari kii nekk en cours nee na yëgul woon ni damaa dem OAP lii Samba saw moo ko bind mail la boo xam ne mi ngi daté décembre 2014 fii nii mi ngi naan man maa développé solution bi ànd nañ ba ci maître Algaf Thiam mi ngi naan euh, je fais référence à ce que nous disait monsieur Algaf Thiam l'ancien directeur technique de l'OAP que le soft appartient à ceux du pays et ne rentre pas dans le cadre de ce brevet comme d'ailleurs tous les logiciels mi ngi nii lii sàmm sax kon xam nga il était au courant de même que BSDA te nee na woon sax moom du laal aftu mais bi mu ñëwaatee laal ko nag bi décision bi amee nag. am na yu bari yoo xam mënuma ko wax fii mais ci la ay lobbying lobbying yoo xam ne si euh, dañ am ñu nekk ci kaw ñu leen di jàppale ñu nekk ci kaw nag ma ko xee egguma ci président parce que président man bind na ma bind na ab lettre félicité ma encouragé wax ñu protéger sama œuvre premier ministre bind na ko ministre yi fi jaar yëpp transport jox nañ instruction aaw pour mu saytu brevet bi yëpp aaw jëloon brevet bi dina ko saytu ba sànq ba léegi bu jëkk transport euh, infra euh, transport aftu dañu amoon billetterie manuelle billetterie yoo xam ne si euh, da ngay dem imprimerie tiiral la ay ticket nga takk ko boo ko tagee année lay am série n'importe qui mën a dem defar ay ticket yu mel noonu de ce fait que ñoom dañoo sonnoon parce que dañ ni moon receveurs yi euh, dañuy yor ay seen i bloc bu ñu leen jaayalee cinquante mille jaayal seen bopp quinze mille affaire ñu sonn am ay manque à gagner yu graaw ci la ma en 2012 bu El Hadj Ndiogou Malick Dieng Pape Ndiogou Dieng wax ma pour ma xalaatal ko si comme que man j'apporte solution solutions ci mbir yu baree bare ci laa xalaat. Euh, jël ay techniciens comme Samba Sow instant yi maa ngi quatre ingénieurs yoo xam ne ñii def nañ mobile ñii def nañ base de données ñi def sécurité ma jël ko bi ma ko jëlee ñu ànd liggéey mu war ma ci ticket yi léegi ci mach ci biir oto bi ngay dugg maanaam machine bi la ay TPE la yu jëkk nag TPE yu jëkk yoon man maa ko fabriqué parce que bu jëkk amul woon imprimante ngi nii smartphone a ngi nii bu jëkk amul woon wala boog bu amee dafa cheroon ma defaroon conception mel nii di ko joxe léegi ci biir oto bi ngay toog ñuy receveur bi connecté wu di jaay ticket ticket am toutes les informations oto bi date heure itinéraire zone muy générer ticket yi en temps réel borom oto bi aussi toog fi mu toog di janoog euh, li mu am du wari du jooni jooni on parle brevet bi su ñu revendiquer c' dans le secteur du transport et la collecte de taxe municipale loolu rek la du leneen pour ñu bàyyi di jaxase comme disait le directeur directeur de l'exploitation surtout naan c'est comme protéger wari non non c'est dans le secteur des transports ba pare y a les revendications et le fascicule de brevet yooyu yëpp la war dama xoolee bala muy kii bi du box bi aussi parce que terminaux bi kenn mënu ko breveter waaw bi ñu defee saisie euh, presque lu mat ay six assignations lañ ma def am naa dañ ni comme que moom nañ ko ëffal ak avocat yi rek dina jël avocat ba dee six assignation yi benn ci am na sax ku ba ab jugement bu génn grosse ba am certificat non appel benn benn lobbying lobbying boo xam ne am na ñoo xam bëgguñoo fës parce que am na ay banque yoo xam ne si jënd nañ ay machine doon def contrefait li may def ba ñu jël seen machine mais yuuxuwuñ defuñ dara dañ ni pat léegi nag jël kenn solal ko mbubb euh, ku mel ni man ku mel ni Mectrans parce que am na machine yu bële yu ñu jël yoo xam ne si bi ñu leen laajee dañ ni Mectrans moo leen ko jox ma woo PCA Mectrans laaj ko mu ni Mectrans du joxe ay machine ma woo góor xuma laaj ko mu ni ma ñoo lool mu ni ma ne ko waaw mu ni ma ah kon de defal la yoon may ci la gars yi saisir bi ñu saisir pare am na réunion yu bari yoo xam ne wax nañ ma lañ fa wax ak yépp tout ay nañ embargo yaa tout mais ñoom boo dee xool ah, non seulement assigné wuñ mais dañoo jël. jugement bi nga xam ne si jugé nañ ko ba mu certificat moral attaqué moom lañ attaqué pour opposer ko c'est du n'importe quoi dilat ay dilatoire ay dilatoire pour lan continuer di utiliser système bi di ko utiliser vingt ans laa amoon léegi six ans yi dem na soo dee xool man état nag yaakaar naa bu la subventionné jàppale la ba nga fexe am xaalis mën a entre jë tabax ay kër loué nga dem jël ay jeunes j'ai plus de quarante deux personnes ci Transpay yaakaar naa war nañ ma dimbali. Euh, yoon li mu li mu li mu li mu li mu li yoon wax ñu appliquer ko ñi nga xam ne ñi ngi contrefait ñu arrêté receleurs yi aussi transporteurs yi nga xam ne ay millions la ñu ma ameel pare daaw yóbbu ma ci kenn yoonaa ah. dem ci ñeneen ñi ñu wax leen ñu ñu seet lii dëgg ñu def ko président Mbaye Amar aussi président bu ñu ko ko defee c'est grâce à l'AFTU kon man mii su ma man daf ma war a def comme njabootam parce que man maa ngi biir AFTU ba ma fa nekkee Baye Ablaye Gueye moo fa nekkoon man maa ngi affilié ci GIE soppali transport kon su fekkee lii am na ba ba léegi woowaguma sàkk naa ñu woo maa ngi wut ay paam lu nekk mi ma koy wax euh, directeur aftu directeur CETUD même chose ñoom ñëpp daal ñi ngi noonu ñoom daal soo amee lu naqari génn teel di kaas ñu ni kii kii court circuit la su ma soñoon nag état bi au plus haut niveau ku mel ni président Macky Sall ku mel ni euh, Mansour Faye ministre des transports dinañ ci al jël ay matukaay ñu toog waxtaan xool na la ñuy ànd liggéey ba een yeeg parce que dima woo dima saaga ndey ñi di ma menacer ba nga xam ne sii lépp dina jaar yoon ñu ànd suqali transport Sénégal parce que am na lu bari lu ci des surtout ci domaine de digitalisation ñi nga xam ni amuñu brevet dañoo bàyyi ba affaire yi sotti ñu ñëw dugg ci ak ñi nga xam ne si dañu indi seen i doom ak seen i jarbaat ak yëpp naan dañoo bëgg a créer concurrence te ñoom ils sont ñoom si wàllu boppam ñu arrêté ñu xool ñooñu nan la ñuy arrangé woo comme li yàlla nit da ngay nangu am na loo xam ne war na fa mbiri yàlla la da ngay nangu topp si ginnaaw ki moom bu ngeen mënee liggéey ngeen liggéey bu ngeen mënul liggéey nga seeti leneen parce que ci leneen la la fekkoon loolu daal lay ñaan euh, ñu jàppale ma ci euh, justice aussi képp kuy justicier maa ngi la ci ñaan nga jàppale ma ci état bi aussi maa ngi may ñaan ñu jàppale ak képp koo xam ne si nitu dëgg nga di ñaan nag euh, mel ni CAPTRANS AFTU CETUD vraiment xam nga ñoom ñoo ma ëpp autorité bëggoon naa daal ñu waxtaan toog xool na la ñuy liggéeyee parce que dañ ma diaboliser ñun ñëpp damaa bari problème nangam mais bari ma benn problème. di ñaanal Sénégal jàmm mbas mi fi dugg yàlla na ko yàlla jële fii ci barkanu sallallahu alayhi wa sallam di ñaan secteur bii ñu nekk transport aussi ñu dem ba ñëpp juboo ñëpp di ci gis seen bopp ñu nekk benn soxale ko daal loolu laay ñaan.